عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق agression bi nga xam ne am na man Baye Mamoune Niass maa ngi ciy wax ci làmmiñu lislaam làmmiñu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci làmmiñu taale bi ak soppe bi mais ci làmmiñu doomi aadama nekk na loo xam ne lu ñaaw la lislaam daf ko bañ aada daf ko bañ sarti réew mi daf ko bañ nit waruñ koo tooñ waruñ koo soo rawatina sax ñu di ko jam puso wala paaka nga rawatina ngay rey bakkan ñaaw loolu maa ngi jaale sama bopp di jaale xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di jaale Imam al Akbar Cheikh Tidiane Sy di jaale Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima ak Cheikh Mouhamadou Lamine ak mbooleem doomi baay yëpp di jaale porte-parole bi di jaale famille Imam Hassan Cissé mi nga xam ne eh, moom moo indi américain fii ci leeru maamam ñu ñëw fii di naan di jàng xam-xam ba loolu am yii fii suñ kaw la daanu ñëpp comme ni ko monsieur le préfet waxee di jaale préfet di jaale gouverneur di jaale euh, ministre de l'intérieur ak président de la république la moo xam ne kenn su ñun si ñoom ñi ma tudd ak ñi ma tuddut koo xam ne jëf yi neex na la ñu ngi koy ñaawlu bu baax di ñaan nag yoon gaaw doxal li nga xam ne mooy li war parce que am na yu waroon a xew ñu maslaa def jàmm kon dañuy xaar résultat yu xam ne résultat yu ko beneen bi mooy daara yi na sëriñ daara jàpp fan yi bu ñuy wax euh, sëriñ Baye Niass muy jëf joo xam ne tam lu ma ñaawul la man lu lislaam ñaawul la lu ma Mawlana Cheikh Ibrahima ñaawul ndax alquran dafa ànd ak yare loi yu bees yi ñu indi nag dañ koy xool war ko jàngataat ba lañ ko jël di ko daan di ko teg ci kaw askan bi parce que daara moo ngi yar ñoo ànd xale dafa am nañ koy yaree islaam am na fu mu daggane nga yar xataa sa jabar dégg nga wotali bu woon na wahjuruhunna fil madaaji wadribuuna am na fooy toll lislaam may na la sa jabar bu ngeen jotee nga nga nga gàddaay ko ci lal bi pour yar ko fekkee na jotee dëgg la tooñ mu tooñ la wala boo ko defee loolu jàjjuwut may na la nga dóor ko waaye nag dóor bi borom xam-xam yi wax nañ ci waxuñ ne nga jël di ko xët wala nga di ko pes wala nga di ko kuri mais da nga xaw a def ni sa loxo sa loxo bi sax doo ko sànni nii ngay def banque say loxo téye say pëgg pëdëg def ko nii dóor boo xam ne nii daanaka rek da nga koy wan ne ko rek yaa ngi koy yar waaye doo ko pes doo ko dóor islam bëggu dóor kon tënk xale fi la nekk nañ seet loi bi nu ñu ko defaraatee waxtaan ak école yi waxtaan ak xalifa généro yi waxtaan ak sëriñ daara yi ñu seet nuñ moderniser affaire yi bu baax mais nag ku jàpp xale rek te tënk ko rek ñu jël la yóbbu la police loolu dama bëgg loi boobu ñu xalaat ko bu baax maa ngi nuyu ñëpp sëñ bi maa ngi gërëm préfet nga baal ñu ñaawlu lislaam nangu bëgg du ko mos nangu te maa ngi koy ñaawlu ci lamenu kàddu lislaam làmmiñu yonent bi a dagan te nañ respecté réew mi nañ respecté askan wi waaye nañ respecté tamit religion yi fi nekk rawatina diine l'islam bi nga xam ne mooy majorité bi 99 yëpp wala lu ko ëpp ay jullit lañ kon nag loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw la man Baye Mamoune Niass maa ngi koy constaté maa ngi koy bañ maa ngi tey tey téere yàlla bi di wax ne loolu jaaduwul ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg képp ku ñu jaayee doole nag yàlla yàlla yàlla moo am doole yàlla dina jëflante yow kon maa ngi ñaan ñu dellu gannaaw ci loolu bu fekkee lu ñu nar a wëyal la buñ ci dellu gannaaw nag ñu ngi ñaan yàlla wan ñu bunt boo xam ne senegal dana àgg fi nga xam ne foofu la foofu la yelloo foofu la yàlla gërëm alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika